dikk a yéen ci xibaar bi la tey jii ci bisub samedi bi fukki fan ak juróom-ñeent ci mois de mars deux mille vingt deux zéro heure teg na ñaar fukki min ak juróom-benn ci ndakaaru ñu dikk ak ci xibaar bi lee kii di Cheikh Gadiaga moom nag euh, bokk ci waa Benno Bokk Yaakaar euh, ñu xamee ko lool ràññee ko ci euh, diggante problème mu Adji Sarr ak Ousmane Sonko mu ci défendre nag Adji Sarr ci lu bëri ci benn entretien bu mu doon amal ci sans limite léegi nii rek ci ngoon daal dina yëkkati ay kàddu nag wax ko ci mbir mi. bii biñ ko laaja situation réew mi fi mu toll moom xam leen ne daal mbirum Adji Sarr Ousmane Sonko dañ ko war a àtte eh, mu jeex daal di wax sax ci woolu bi nu woolu kii di eh, borom salaw de buté bi di Ndeye Khady Ndiaye muy mardi bi nu dëgmal dem na sax ba yegg ci ne Ndeye Khady moom kenn wuru koo bàyyi sax muy traîner ndax dafa liggéeyloo Adji Sarr loo xam ne du métier am àgg na sax moom ne dafa bëgg sax nag ne na eh, takk kii di Adji Sarr soxna ànd ak moom ci restaurant yi di ndax Adji Sarr dafa war a dund comme ni jigéen ñëpp di dundee ba kenn tudd ko wala mu taas ko ndax nee na bëri na ñuy wax ci dossier bi te xamuñu ci dara te am na ci ñoo xam ne sax nee na seen soxna yi ñu takk lu mel nii dal Adji Sarr daloon na leen donc moom daal euh, défendre na lu bëri ci wàllu woowule ba noppi tamit ne eh, nanu woolu Ousmane Sonko laaj ko ci fukki nit ak ñeent yi nga xam ne ay eh, jot nañoo ñàkk seen bakkan ndax moom moo woote woon woote génn gi waral eh, xeexoo yooyu am moom daal seex Gadiaga yëkkati na ay kàddu yu bëri wax ko ci actualité politique bi waaye rawatina ci diggante Ousmane Sonko ak ay saar ci internet yi gën retenir nag mooy demande gim ko demande mariage bëgg koo takk ñu laaj ko ndax da ko bëgg mu la comme ñëpp ànd ak moom ci restaurant yi dox ba kenn tudd ko mbaa taas ko